jëf mbokki téléspectateurs yi ànd ak ñun fii ci cœur de ville bu euh, Kaolack daleen ak jàmm ci euh, dernier numéro xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel cinquième édition foire internationale bu Kaolack foire bi euh, mat na comité d'organisation bi tiré bilan bu am solo ci cinquième édition bi mu mel ni lu ëpp junni ak ñaar fukk ak ñeenti exposants ñëw nañ ci foire bi waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di visiteurs yi ëpp nañ téeméeri junni réew yi nga xam ne ñoo fi teew ëpp fanweeri réew loole lépp li nga xam ne moom moo di comité d'organisation bi ñoom ñoo amal bilan boobu loolee di kàddu ki nga xam ne moom moo di le président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack di monsieur Serigne Mboup doon janoo ak taskatu xibaar yi ñëwaat ci bilan boobu lee mu jëm ci foire bi. soo xoolee ne 1200 exposants ñi ngi fi wóor na ne minimum minimum. boutique boo dugg fekk nga fa trois personnes yuy liggéey ça veut dire que mooy daanaka foire bi temps bi mu fi nekkee employé ne plus de cinq mille personnes parce que soo nee trois fois mille deux cent yaa ngi ci trois mille et quelques ak service sécurité beeg service restauration beeg daanaka événement boo xam ne quinze jours la durée employé cinq mille personnes kooku euh, yaakaar naa ba ñuy bi Sénégal di am ak léegi amul Kaolack transaction économique bi ci am tamit c'est inestimable ah c'est vrai que bëggoon nañ man ko chiffrer mais compte tenu que commerçant yi ci bari dañoo nekk dans le secteur informel munoo leen a imposer ñu chiffrer ko mais xam nañ ne moyennement kenn ku ne boo fi defee chiffre d'affaires bu mat moyennement un million rek yaakaar nga ne mën nañ ne ci quinze jours yi Kaolack a enregistré plus de un un milliard cinq cent de chiffre d'affaires mais xam ngeen ne sax ëpp na loolu ndax am na ñuy def ay cinq millions am na ñuy def loolu ah ci côté visite jéem a ko gis nit ñaa ngi fi kenn mun a wax ne foire bi amul nit voilà ci côté euh, dure bi gis ngeen ba onze heures ba minuit nit ñi dañ fi nekk daanaka booy génn nit ñi sax da nga leen di forcer kon ah gis nañ ne en tout cas ah, exposants yi tamit bi ma demee ci ñoom am nañ satisfaction ci organisation bi ci organisation bi parce que amu fa benn cas de vol toilette yi set na ah, ah expose tamit ah, encadrement bi ñu ngi leen di jàppale mais li ëpp solo ci foire bi du lii du jaay meeg jënd président Serigne Mboup la ñuy desal ba léegi ci janoom boobu ak taskati xibaar yi doon def euh, bilan foire bi moom nag yeesalaat na digganteem ak président Macky Sall mu nekk diggante bu rafet lool te saa su ne mu fas yéene ko ànd ak moom jàppale ko ci mboolem projet économique yoo xam ne mi ngi ci rawatina dëkk bi di Kaolack waaye di ko fàttale bu baax a baax li nga xam ne moom moo di port bu Kaolack ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a yeesalee liggéey bi ñu baral ko ngir bokk na ci li nga xam ne dana gën a mën a suqali lii di. comme comme dëkk bi ñu ànduwaat teelu le président Serigne Mboup kon nag tey nit ñi accusé naan dañoo bëgg a defar Kaolack pour suñu njariñu bopp mais ñoom déjà ñoom dañu jël ñun suñu njariñ bëgg koo jariñoo te bëgg a mbubboo président de la république li may wax ñoom ñëpp ci laa koy wax gënuñ maa bëgg président de la république gënuñ ma am accès ci moom gënuñ ma koo jege Diouf Sarr wax na ko fii bañ koy jàppale wala ba ñuy maandu ci ku koy jàppale yemale ñëpp ndax loolu lañ mas a doxe ñoom ña feneen te xam nañ ko xam nga bëgguma di xuloo waaye dinaa leen wax ñoom ña feneen suñ toogee tey nag naan ñun ku président wax rek moom la ñuy faral ñàkk wóolu sa bopp je pense que dégg naa benn ministre boo waxoon am solo ne ko président bàyyi ma bu ma jox dara bàyyi ma ma dem gagné bu ma gagné nga doog maa jox ndombal tànk je pense que loolu mooy nit waaye toog naan président ku mu wax rek président de la république falu na ba noppi mairie yi c'est des affaires su doon tey président de la république bu ko neexoon suba mu woote projet de loi bu ko neex ne maay nommé maire su fekkoon tey moom dafa bëgg ne maire moo fi nekk mu def ko loi bi may na ko ko mbokk yi ba léegi ci xibaaru foire internationale bu Kaolack association de femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi euh, ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na taxawaay bu am solo ci euh, cinquième édition foire internationale bu Kaolack ñu àndoon ak comité d'organisation bi ci mbooleem activités yi nga xam ne amal nañ ko ci euh, foire bi rawatina association bi nga xam ne moom moo di réseau des femmes opératrices économiques bu Kaolack di REFOP ñoom ñu am taxawaay bu am solo ci foire internationale bu Kaolack ci njeexantal bi sax am nañ benn cocktail bu am solo boo xam ne amal nañ ko doon joxaale ñi nga xam ne ñoom ñoo di yenn kilifa yi ak organisateurs yi ay raaya wala ay neexal mu jëm ci ndam li nga xam ne am nañ ko ci organisation bi ñu ànd teewlu kenn ci ñoom di madame Tall. je disais dañuy dañuy conclure nii jeex na ba pare mais li ñu bëgg a wax mooy que tey REFOP muy regroupement des femmes opératrices de Kaolack mu nekk ay femmes yu am jom mooy ñoo xam ne vraiment liggéey rek moo ñu tax a jóg li may wax REFOP bu wax ji bëree du ñun bu def ji bëree ñun la donc di nekk ay créateurs d'avenir ndax lu tax créateur d'avenir mooy que ne. dañoo bëgg dem fekk ñoo xam ne dañu taxawoon wala fu dara amul ñu def fa dara parce que ñëpp xam nañ ne que jigéen mooy gardienu ménage yi donc ñu ñëw judd depuis mois de un an mais ñu gis ne femme euh, tey lu ñu mun tamit chambre consulaire commencé ko ci chambre de commerce ñoom ñoo ñu accompagner ba léegi nii teg ñu ci ay manuel de procédure teg ñu ci ay ay programme de formation teg ñu ci yoon mi nga xam ne ci la ñu mën a thésauriser denc li nga xam ne dañ koy yore pour pour gérer ko avec beaucoup de transparence ñu teg ci chambre de métier mi nga xam ne vraiment ci wàllu savoir faire bi ñu ngi ñu ciy jàppale bu baax parce que boo xoolee li ñu wër yëpp artisanat la te amuñu ambition wu di jaay rek continuer di jaay li ñeneen ñi di defan li ñuy jaay la ñu bëgg a promouvoir à l'extérieur donc mu nekk ñaari partenaires yu stratégique ñi ngi leen di gën a tàllal suñu loxo ñi ngi dem ak jom mais mun nañoo bañ a xam mais yéen xam ngeen yoon bi ngeen ñuy teg donc tàllal nañ seen loxo joxaat leen espoir bi nga xam ne am nañ ko ci yéen ñun tamit wax nañ leen dinañ takk suñu ndigg ni ko président Serigne Mboup mi nga xam ne ñu benn yoon waxee ànd ak yéen pour ànd ak yéen ànd nawle maanaam loo leen def ci ñun benn dinañ fexe jox leen ndam bu mag waaw duñu duñu rek toog pour lang pour ñu ñu ñuy soutenir à tout jamais déedéet dañuy takk suñu ndigg am jom pour lépp loolee ñu defar rek ngeen gis ci résultat loolu rek moo ñu tax a jóg kon boog ñu ngi leen di gërëm di leen sant. mbokki téléspectateurs yi ci image yi moom la ñuy quitté ak yéen ci dernier journal bi nga xam ne moom lañ jagleeloon cinquième édition foire internationale bu kaw Kaolack santaat leen bu baax gërëm leen waaye sant le pays invité d'honneur muy le royaume du Maroc. sant comité d'organisation bi exposants yi ak visiteurs yi waaye sant le président de la chambre de commerce de Kaolack muy monsieur Serigne Mboup ak le président de la chambre des métiers ci seenub taxawaay jëmee ci organisation cinquième édition euh, foire internationale bu Kaolack sant leen sant mboolem euh, équipe technique bi nga xam ne moom lañ àndaloon ci cellule de communication bi ci taxawaay bi muy euh, Jamal Ndong waaye it Aline Badara Diop ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal dig leen daje incha allah ci sixième édition Phare international bu Kaolack ci atum 2021 jërë ngeen jëf